ay bagaasam ab sëriñu tariyaax la nekkoon fii ci ci daaxul mi nan da doon sàkku soxnaas jàmbur bëggoon ko tëddee boroom këru ndaw si di Abdou Lahad Dieng di indiwaat ay leeral ci ni nga xam ne noonu la mbir mi demee. ma ma koy bàyyi xel di ko gis léeg-léeg mu parce que moo ñëwee damay xool ba xam ndekk tarmuus bi da day may day may kii café léegi ba démb nag ma soupçonné ko woo ko ne ko kii mënuma kii xaritu faatu la sama doom ma ne ko ah loolu de gëmmoo ko daal dem moom itam nekk waa ji ko dafa nekk Jurbel ne ko sa jëkkër da liggéey liggéey bi da ko suul ci biir kër gi ci biir kër gi la ko wax ci la ko suul mooy kii ñaan ci biir kër gi la ko suul su ma ñëwee naa la ko dindil mu ne ko waa baax soo ñëwee dindil ma ko ba mu ñëwee ci suba sa mu ne ko da nga fi ñëw mu ne ko mënu ma fee ñëw te awma preuve boo man boo xam ne da naa ma liggéey baa ngi ni ma toj léegi ci guddi gi moom mii mu ñëw fa suul ko ci buntu kër ga daal ci def ay puso photo yi yor naa photo yi sax ndax ko daal ci def ay puso daal di bind daal denc bi mu ba soxna si ñëwee mu sulli ko soxna si ne ko man de waxoo woon ne ma ci buntu kër gi ci biir kër gi nga ma waxoon ne kon comme borom tailleur boobu tailleur ay complot daal di jug ndànk moom itam ñëw fekk leen ñëw taxaw taxaw feneen itam dégg ñaam ñoom ñoo ñu waxtaan mu daal jël appareil daal di daal di bës vidéo bi daal di dugg nuyoo salaamaaleykum ñu ngi taatoo mu daal génn boobu preuve la bëggoon xam ndax dan sëriñ bi moom moom ñaa kenn ku nekk noonu sa morom xamante woon miinante woon loolu mooy problème bi léegi nag bi mu defee noonu bi ma ko laajee la ne ma da ko woo téléphone def ko may livre mu ne ko man dama laa bëgg a dimbali mu ne ko li ma jaaxal mooy sàkku gi nga ma doon tëdd gi nga ma bëggoon tëddee mu ne ko yow am nga lu looy def lu gën a bon ndax sa jëkkër dana la soxla nga bañ te loolu moo gën a bon tëdde am na loolu da nga jëw te jëw moo gën a araam moo araam njaalo soxna si ne ko ko def dañu laa war a rey te yi ngay wax ni duñ la ci rey te njaalo man daal lu ma di xew lu mu ne ko léegi bàyyi naa njaalo bi daal moom bi mu defee noonu mu ne ma nag dafa ñëw mu ne ko sa lig soxna sa jëkkër laa liggéey liggéey bu diis moo war a sa yaram diis am dara léegi soo ñëwee moo tojal liggéey bi da am xaalis soo ñëwee ma sëree ak yow it samay mbir dana baax say mbir dana baax soxna si moo ma nekk loolu moom it confirme na ko ci téléphone bu mu doon wax moom soxna ne ko man loolu duma ko def mu ne ko ma ndox sama ndoxum mii boo ndoxum sëy mii ak ko joxee nga sangoo ko euh, liggéey bi dana toj soxna si ne ko du ma sangoo sobee boo da nga am boo xëy boo boo sonn boo liggéey boo liggéey da nga am xaalis mu ne ko man ba léegi bu takk téere bu am sobee di julli du ko def mm-hmm.

ci la ñu ko jàpp. bi ñu yeewoo rek danoo jot ay message am yu muy ñaane kafe moom mi moom mi moom sëriñ bi léegi nag bi ma ko waxee nag laan ci laa wax ci laa wax ci waa Xuddaam Xaadim ñu ne ma léegi comme mi ngi koy woo léegi pour preuve bu gën a leer léegi na dem yóbbu kafe gi. Mm. ci la ñëw indi kafe gi bi ñëwee fekk mu tëdd ci lal bi moom mu taxaw moom mi mu toog tiim ko. léegi nag après laa ne ko nag léegi deel wax comme ñu ñu ci ay enquête deel di di envoyé tamit bu ko xamal ne ko yëg naa dara nar naa dara bu ko wax dara bu ko defee moom démb man ma woo mu jóom yi démb ba léegi ñu ngi ci traité ak waaxu daamul xadim ba tey jii nag ci leen ko wax ne ko comme da lay ak ñaan café boobu ba léegi demal yóbbul kuréel gi nga xam ne moo di Xudaamul Xadim def ci liggéey bu am solo ci njiitalul Mod Jóob Jawbe ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi jàpp waa ji ci ay preuve yu leer naññ lu yoon fii benn kër nekk fi bi mu gisee soxna si nag mu woolu ko waxtaan ak moom xamal ko ne ko sa jëkkër daf laa liggéey liggéey boobu moo tax mu dott la ci kër gi bu mënoo def dara léegi dangay ngay ñëw ma dindi la liggéey bi liggéey bi nag mënu ma koo dindi te sëy ñu man a yow seq ñu sëy maanaam am ak yow rapport boo ndaw si bañ euh, ci li ñu ndaw si wax bañ ay yoon ah euh, euh, xaj na li ñu def tànte na ko ay tànte yoon yoon moom dana ko dana ci dikk tànte na ko ba mujj mu ne ko léegi da ngay ñëw fexe génne li ci sama kanam bu ko defee bu génnee war ma jee tax mënuñu ko tudd su génnee nga diwoo ko. boole kook beneen diwoo ko dana tax liggéey bi dañ waaye sa jëkkër daf laa suul liggéey ci biir kër gi waaye yemut ci loolu euh, li mu ci dolli mooy bàyyi ba borom këram génn mu jël lu mel ne affaire liggéey suul ko ci kër ga moom mii suulal ko boppam ca kër ga bu ñu xëyee mu ne ndaw si nag léegi liggéey bi nañ dem ma génneel la ko nga gis ko ànd ak ndaw si dem génneel ko liggéey bi fañ ko suuloon ndeke moom moo fa suul liggéey bi moom mi toog li mu ci jublu mooy fexe ba sàkku ndaw si ndax nee na loolu la waaye nee na da koo tëyut ci li mu ñu wax neena da ko teyut ndax ay affaire koy dikal mu diko def legi nak ñun liñ ciy def rek moy euh ganna bi ñu jokk ak suñu kilifa muy señ am sam señ ablat mu jaar ci señ bass cioro euh, ñew ci señ abdourahim fall señ bi neena ñu bum bum yendu daaru minam na fa joge legi nak mom mo gennel bopam ay bagasam ni dana wuti fum ko def borom kër gi ko leewon delu nañ ko caabi kër gi mi ngi ni ki représenter délégué bi muy euh bay daawdi jaxata mi ngi ni tok parce que ñu la touba mais daaru minam mu lool waru fi am bii nag moom lañ gis ci moom euh, li ci warit mooy bu ñu paree dinañ ko yóbbu police ñu identifié ko identifié mooy kan bu ko defee mu jël ay bagaasam neen nag ma nga dëkk fa ñu wax njaareem ci ay waxam loolu la wax ah euh, ñu koy wax rek ni ko loolu moom bëgguñu ko ci dëkk sell bi di Touba. nag lépp lu ñu saytu ay preuve lañ ci am ñi nga xam ne mën nañoo waxtaan ak ñoom maslaa ak ñoom ñu def ko ñi nga xam ne dañ leen war a génne dëkk bi ñu génne leen dëkk bi ñi nga xam ne dégg nga tuub nañ jéggalu ñu baal leen ñu dem. ndax ëllëg mën naa dog ba ëllëg ki tuub bàyyi lépp nekkaat koo xam ne ndax du du moom nit ku bon la xaj na du nit ku bon la waaye li mu def mooy li nga xam ne moo baaxul loolu la ñuy wax euh, nit ku lu ñu ko jàppee rek lam defa tax ñu jàppee waaye nit en tant que moom du du du doon nit ku li nga xam ne moom la ñuy tuumaal sëriñ bii doon ñaan nee na lépp moom moo ko def nangu na tuuma yi waaye di ñaan ak njéggal. maa ko ne jox ma sa bopp. man maa ko ne waaw dama ko doon saako. waaw liggéey nga xam ne ca kër ko def. ndax da ko ko liggéey bii. waaw sa jëkkër da da da sa jëkkër daf laa liggéey. waaw liggéey ba kan moo ko suul ci kër ga. man maa ko suul waaw. yaa ko suul ci kër ga. waaw maa ko suul yaa àndaat ak moom dem. Mhm. sulli ko. waaw ndax yaa ko woo di ko laaj café. waaw ndax yaa ko andiloo café gi. waaw ndax yaa ko doon jéem a waaw léegi loolu xam nga dañ koy tere. dëgg la. ah waaw. léegi nag ñun li ñuy def mooy. Mhm. loolu sëriñ bi bëgg ci dëkk bi. dëgg la leer na. léegi looy sàkku ci loolu nga def. li may sàkku ci loolu mooy. jëkkëram a ngi nii waaw li may sàkku ci loolu mooy. Ah. Eh, li may li may njëkk a wax mooy. liy am am na ba pare. mënatuma set te jéemal moo sax setal sama bopp. yaa ngi dégg kon bu yóbboo nag li ma war mooy jégalu ndax man maa tooñ. te mbir ma ni mu demee yëpp loolu sax jaratuñu ciy wax man maa tooñ rek man maa tooñ yaay dégg. ñaaxaat nañu soxna yi bu baax a baax rawatina ñi nga xam ne dañuy sëy ñu bàyyi xel bu baax ci ñu mel nii ndax bëri nañ lool ci dëkk bi. ñu ñu leen xamal ni yéen yéen soxna yi nga xam ne da ngeen di dem ci kilifa yi di ñaanlu ngeen bàyyi xel ni bu baax lu mel nii bari na fi lu mel ni bari na fi lool ñoo xam ni ndax du kii rek lañ ci jàpp ñun Touba ñu ñu fi jàpp bari na lool ci lu mel noonu ñoo xam dañuy ñaanloo ay jigéen ba pare di leen sàkku benn preuve la ci moo xam ni dem ci kërug jàmbur suur fab liggéey ba pare dégg nga ko ni ko sa jëkkër ko fi def loolu day yàq diggante. borom kër gi nga xam ne moo luye woon sëriñu tariyaax bi nee na mësul xam ne lii la waa ji nekkee woon ci kër gi donte daan na gis ay jigéen yu bari daan fi dugg. ndax man saa su ne maa ngi ci kër gi ah bu ma génnee itam ñetti weer lay am dellusiwaat ci kër gi. lu fi waaye di def lu ne nag moom lii nag moom wax dëgg yàlla moom ump na ma lool moom wax dëgg yàlla ndax moom déedéet wala kii déedéet ah gis nit ñi fi dugg jigéen ñi daan nañ fi dugg li fi ëpp nag ay jigéen la moom ñoo fiy dugg waaw waaye bu ma xamoon ne lii la fiy def itam nag wax dëgg yàlla moom du ma dëkk moom ndax man kuy taxawal du dëkk sama kër mukk ku fi dugg ku ne loolu laa lay wax. lu ma naqari lool am lu ma naqari lool nag ndax lii moom wax dëgg yàlla bëgguma ko li sëñ bi bañ ci dëkk bi moom bëgg mu sama kër gi. sëriñu tariyaax bi nag génne nañu bagaasam yépp ci teewaayu kilifa yoo xam ne ñoo fi teewaloon chef de quartier bi. ñoom yëkkati nañuy kàddu rafetlu liggéeyub xudaamul xadiim waaye ñaaxaat bu baax a baax askan wi ñu gën a bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy luyee. war na nag kép koo xam ne si mi ngi jonjong noonu nuy xool na nga war a doxe di gëstu sa mbir donte sa léera luñ koy do war na war noonu ko xam baax boo dee kuñ mën a àndal nu ànd yow bu dul kuñ mën a àndal ñu génne la saani jàll loolu moom mi ngi fii am léeg-léeg nu nekk ak kii man fi ko xam tey bu daje woon ci bedd mii rek ku ma laaj dama naan kii de man ci jàkk ji laa ko xam waaw bu ñu dikkee ci jàkk ji man maay def ñaare ku julli julleeti booy jóg bu fekkee nit ñi wéet nañ moo ma téye sa loxo nuyu la ne na nga sant waaw waxuma turam léegi loolu la ma wax bi bi mu ko waxee laaj naa ko ay béréb ci fu mu dëkk yu demee noonu ndax man a jàkk ma ko fii man dama bëgg ko fi nekk ma di ko xam ko nekk xam naa ne it maa ngi koy seen muy yéeg escalier bi toujours du yéeg ak wàcc ndax sama kër ak gii dañoo jàppaloo fi ne buy dugg ak wàcc bu nekk maa ngi koy seen bu fii dugg it maa ngi lay seen ndax sama kër a ngi nii noo wanante gannaaw ma toog ci sama te kuy kuy dugg ci escalier yi maa ngi koy seen waaye nag loolu rek laa xam ci moom loolu laa xam ci moom waaye nag lii moom lu tàggee nag mu yem ci béréb bi dong li ngeen di wax xam naa ko bu baax ma bëgg nu bañ ko yemale ci béréb bii béréb yépp nu koy sirwaayee di ko xool ni ngeen di def nu koy def doonte donte jógunu sol sunoo dal di jàppaloo ko def yow képp koo xam ne si xam na ne tegewul ci yoon kookee yéen ñi nga xam ne